mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle fanaan ngi wax ak ñoom ñoom ñaar li lamb bañ ak li lamb nangu ndeysaan loolu yoon la loolu mooy règlement lamb naan leen coup de sifflet bi moo di boole moo leen di tàkkale daam eh. mais ñaar ñi miin nañ loolu wax yooyu miin nañ ko miin nañ ko ndax aada xale la mais am na takkusaan yu bari yoo xamante ni def na ko fi ndeysaan Zarko moom it takkusaan yu bari def na ko fi waaye ba tey arbitre baa ngi wax ak ñoom wax ak ñoom ba tey ndax combat bi warul yomb déedéet déedéet il faut que wax leen koy fàttali rek mi ngi wax ak ñoom ba tey waaye Zarko daa jël loxo yi boot ko ci ginnaaw. Fatma coow li yàggoon na. non yàggoon na. werante yi yàggoon na. yàggoon na ci grand place ci fépp ci marché yi. ndeysaan ci kër yi. ci kër yi. ci bool añukaay yi. la ilaha illallah. ba fi ñuy njaree soow sax. la ilaha Fatma Diallo waaye dem jaay léegi mu lamb. Zarko nee na gars Zarko yëkkati na bi xale bi consulté arbitre de suisse yi laaj na Zarko laaj na Ada Fass arbitre sifflé na Dame. dimanche 15 janvier 2023 drapeau Ba diggante Zarko bu écurie Grand Yoff ak ki nga xam ne mooy Ada Fass Zarko moo féete càmmoñ jiital pied gauche Ada Fass moo féete ndeyjoor jiital pied pied Fatma. ñaari xale yi ñu ngi léewtoo léewtoo longue distance. ndax Ada Fass mbokk yi ci victoire la jóge la fi daan fi ci arène Zarko mujjee ci ki nga xam te ne moom mooy Baye Mandione mais ñoom ñaar ñëpp am na lu ñu waxoon daam ñu xool ba xam li ñu waxoon. ko jëfee. ndeysaan Fatma. Hmm. face à face woon na. ndeysaan. face à face yi métti woon na. lépp fii la ñu fekk. lépp fii la ñu fekk nañ seen écurie. mais dafa mel ni Zarko dafa bëgg dem. non Zarko. waxoon dafa bëgg dem ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk nee na moromam du ko diriger. ñu xool nag kan mooy diriger moromam. da ngay leetoo. Ada Fass Zarko. Ada Fass Zarko arbitre baa ngay wax ak ñoom bàyyi leen ñu bëree. arbitre bàyyi leen li combat calcul la. arbitre bàyyi warul yomb arbitre bàyyi leen ñu bëree. Zarko. mel ni Zarko dina la pataake ba sànni na ko ca yaari Ada Fass ya ndeysaan waaye daam di di di di souhaité di souhaité joyeux sama benn doom ñaan ko Dora Samba Dia ndeysaan doom Samba sama doom sama xarit nan la joyeux anniversaire happy birthday joyeux dundal doom Samba Dia ndeysaan sama doom la sama xarit la waaye ñaari xale yi ci digg géew bi ba tey dara xewagul dara xewagul Fatma Dia Zarko moom moo ñëwoon à Zarko wàcc na ba toll ak moom ña ngay lewtoo ñoom ñaar Zarko moo xaw a sut a sut tuuti il faut tamit moom mu wàcc pour mën a moom ñaari kaayam ñi ngi taxaw géwél la rek ngay dégg ndeysaan géwél yi ngay dégg ñoom ngay dégg ñooy tëgg ñoom ngay dégg ñooy way Fatma Dia arbitre baa ngi lamb baa ngi seen diggante waaye ja lamb na tekk ñëpp a ngi toog ndeysaan di xool ñoom ñaar yoon la Fatma Dia caméraman yaa ngi caméra reporter yaa ngi wax waaye seetaankat yaa ngi na tekk di déglu ndeysaan gisuma kenn ku nekk sa famille toogatuñu taxawatuñu cey lamb Ada Fass gisuma Fass waaye kenn nooyeetul ba tey ñoom ñaar da ngay waaye boo demee Grand tamit mi tekk ndeysaan mi ngi na tekk ah, dem Fass Delorme mo ndeysaan dem dem Gueule Tapée waay Gueule Tapée Médina oh bu ngeen seen di wax tamit ki nga xam ne mooy félicitation à Binta Ndiaye. ndeysaan sama doom la Ada Sali ah, na Ada na cokkas na waaye demul ndeysaan. waaye demul. Zarko. ñu ngi néew too Zarko dafa mel dafa bëgg a dem. tibb na suuf. cey combat bi combat calcul la sama xel demaat na gépp Balla Gaye Boy Niang ba ndeysaan Balla Gaye dem Zarko dafa mel ni fa bëgg dem Zarko daa bëgg a dem ba tey aada ma ngi koy déglu ndeysaan combat mafia la combat mafia bi ko tëgg mafia la ki ko signé mafia la am Abdou Fall dafa dangereux ñaari mbëri ay aara sànni na Zarko moytu ko Zarko Ada Fass Zarko mi ngi Zarko ba tey dara xewagul waaw daam ñu jàppante lamb ji jeex maa la ko wax non li ma li ma yaakaaroon sax man jàppante lamb ji jeex mais ñu ah, waay waay gaa yaa koy war nan ko ñu koy yuuxoo lamb ji moo lamb ji laajul loolu combat calcul la combat calcul la fan ma jàpp Ada Fass am na ah, avertissement ñoom ñaar ñëpp am na avertissement bu mu yàq bu ko na Zarko ak Ada Fass ak Ada Fass tey nekk 15 janvier 2023 ci at mu bees mi fii ci arène lamb mafia ndeysaan Ada Ada Fass Zarko Ada Zarko ba tey daa wàcc Zarko Ada mais dafa mel ni eh. ah, Zarko pied pied Ada bi daf koo xaw a dérangé daf koo dérangé ah. pied droit bi ah da koo dérangé am xoolal aada. aada day dem de. Ada Fass day dem. aada day dem de. Ada Fass day dem mooy sànni gauche bi. waaye Zarko Ada Fass ah, ah, daje nañ daje nañ Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Ada Fass Zarko ña jëm ñaar jàppante nañ Ada Ada bal na Zarko ma xool luy xew ñoom ñaar ñi ngi na Zarko waa Arafat Zarko Arafat Zarko Arafat Zarko Zarko mi door ci suuf Adama mi wut ngemb Arafat Zarko Ada Zarko ndeysaan Ada jàpp na waaye dafa mel ne moo xaw a ki nga xam te ne moom Zarko Zarko Ada Fass aada lan nga tante aada loo bëgg tante am na lu ma waxoon am doy na waar bu luy xew daam ay bu sigee maa la ko wax Fatma Dia ah bu luy xew daam ay bu sigee <laughs> ay bu sigee ndeysaan Zarko aada Zarko mi ngi door ci suuf pour mu sigi Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass fii lu ne mën na xew Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Ada sigi na Zarko Ada Fass Ada Fass Zarko mbokk yi Ada Fass moo ñëwoon ginnaaw Zarko moo ñëwoon kanam da koo nengeñ nengeñ bi ko ngay nengeñ moom tax Zarko mënul def dara ndax gisa bu sigee day toqi day toqi ndax ndax nengeñ bi ndeysaan Ada Fass lu mu bëgg Ada lu mu bëgg Zarko dafa diis waaye waaye Ada nee na ko boo diisee moo ma Arafa Zarko Zarko moytul Zarko moytul Arafa jàpp na ngemb Arafa jàpp na waaye Zarko loolu la koy xañ moom moo tax bu bëggee jàpp rek mu puus Arafa Zarko attention Ada loo bëgg Ada loo bëgg Arafa Zarko Ada Fass Zarko non lii mooy com non lii mooy nee naa la lamb daa toll foo xamante ne boo dee xale da def li nga def Zarko looy wax Zarko Zarko mu ne waaw waaw ma da koo bëggoon a mbot waaye mbot waaye daa ñorul ñorul Zarko Ada Fass Ada Fass jàpp na waaye Zarko jàppul Ada Fass Zarko Ada Fass loo bëgg waaw waaw mbot ma waaw waaw Zarko daan na Ada Fass Zarko daan na Ada Fass da ko mbot jéggi waaw waaw Zarko daan na ko Zarko daan na Ada Fass Zarko daan na Ada Fass waxoon na ma ko nee na ma Ada Fass amu ci dara ci combat bi Zarko def na maninam Zarko def na Ada Fass bu leen yàq ay waay bu leen yàq saisi Ada Fass oo oh! xale nga waaye am nga jom bëre nga ba daanu Ada Ada wax naa ko sànq Zarko daanee amul dara lu muy wàññi si Zarko Zarko daan na Ada Fass ndeysaan ndeysaan dar Zarko daan na ko jéene bu leer bu ci bëre la ko daane waaye Ada de mérito woo xale nga mobilisé nga am nga jom bëre nga ba am kenn amul dara luñ lay wax waaye Zarko da ko làmb bàyyiwaat xel xale la mi ngi def ay am nag mi dem ñu xool Zarko fu mu jëmati ndeysaan waaye yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay